maa ngi lay nuyu di la ziar di nuyu population Mbour gépp bu baax a baax a baax di leen sant di leen gërëm li ngeen de ak ndaw ñu nuyu ñëpp di leen masawu si si déplacement bi ak coono yi su ngeen ma tooxeel buñ ma ma mën moo wala mooy dem dara damay gërëm ñi nga xam ni ñoo organisation bi ah, du lim ñoom ñëpp nag def baax a ah, ay effort organiser affaire ba mu yoon maa leen di nuyu di nuyu samay staff yëpp nag muy mbëri may jàppale entraînement muy euh, sama manager Aliou Guèye muy staff bi nga xam ñoo géré beneen côté bi maa ngi nuyu ñëpp euh, sant di nuyu waa Mbour nag di leen wax ni kontaan naa trop si bi ndax bu euh, nekk xam ne dimanche bi di ñëw mooy combat bi donc ñu ngi yàlla ñu fekke ko ak di ñaanal promoteur bi organiser combat bi ñu am fekk ak tal yàlla may def incha allah. ay ca xam na ne revanche ngay jëli sa diggante ak ki nga xamante ne bii mooy am naka ngay demee arène nationale incha allah ak rek mooy combat la ba fonk lool lool lool sax fonk naa ko samay staff fonk nañ ko samay mbokk fonk nañ ko sama waa dëkk fonk nañ ko euh, boo gisee lii tey waaw waaw kay boo gisee lii nga xam ni tey population Mbour dañ may gunge vers la victoire incha allah rabbi dafa leer waaw donc dama leen di ñaan rek li ma daan wax lay waxaat surtout sécurité bi nañ ma encadré sama doomu dëkk si bi ba biir arène leen tranquillement kaw tribune ñu supporté seen bëri yéen li ma leen sant rek yëgal leen si kaw rek ñu jëm moom maa ngi dañ koo dégg démb mu ne foo jaar nga jël kuwam nee foo jaar nga jël kuw il faut ngeen xeex. waaw man ragaluma loolu ragaluma jël bu ragaluma yooyu yooyu moom man tàmm naa ay waxu moom moom si boppam boo ko yeewoon di ko ay waxi ku moom moo si gën a am xel ñaar ko man nga ne ku la dóor ku nekk da la abal yet bi. waaw bi passé dama génnee jeexaat mu bëggoon pirater. ma ne ko boobu maa ko moom keneen laa ko génne loon bii dama ko génne laat ko dóor fayu dóor fayu dóor fayu dóor fayu ko dóor moom da fayu dóor fayu waaw waaw waaw li ma si dolli mooy fayu nag moo gën a métti fayu fayu mooy gën a métti foofu incha allah rabbi mooy gën a métti lu tax nga wax loolu waa xam nga ki lay dóor ki lay njëkk a dóor day am xel ñaar mais kii fayu dam xel ñaar fu mu gën a tar rek gën a baax da ngay fiir rek baax la mën wala dóor dóor dina ko jàpp daan wala dóor soog a daan waaye déggal gars yi la ñuy tëgg fële moo neex xoolal man li may itteel rek mooy buur dafa lu wane dig mooy ndam incha allah bi su ma ko jekkoo war ko dóomu daan dama ko jor mu wàcc su ma ko waree jàpp daan ko dama koy jàpp daan bëre dóor lañu wax mais bu daan wàcc ay ja joxal Fatma wuy fa joxal Fatma ja jox ko jox ko jox ko jox ko mu ne confiance confiance ko deux fois daan Modou Lo Eumeu Sène jour bu nga kiwee roi bi ko perte ko dëgg léegi ñu bi nga jël dañ dama ko siy boole si kattanu yàlla loolu moom confiance bi noonu laa mel naturellement man ku ma xam dama gëm sama entraînement gëm sama staff sama ñi may encadré gëm ñi may ñaanal gëm sama waa dëkk moo tax man waruma ragal mais loolu daf may neex man dama bëgg combat runkum daje na fexe ba li mu wax rek moom li mu wax na ko dëggal dimanche damay bañ mboq ni rek si micro yi ñu dem stade mu ñëw teg leneen gars yi dañoo tàmm loolu mais bu nee daw daje ñamante loolu bu ko defee rek doom neex ndeyam non li may def dimanche incha allah bi dama ko wax dama koy wone dañoo tollatul si jamonoy wax actuellement. si jamono yu jëf la toll li si demande si bëreetul quatre jours la si des quatre jours xaw ma cinq kon nag la sa des mooy jëf. Modou Anta. man daal nañ ma gunge. ah ban saaru la manière man loolu laa gëm ma leneen man li ma liggéey ak samay mbokk ak li ma daj daan rek laa gëm boo ma leneen incha allah rabbi ayca Modou Anta Modou Anta waaw Modou Anta Modou Anta waaw Baye Balla ana ko yo ayca may ko mu ñëw mayel Baye Balla mu ñëw na ñëw ma c'est bon daa jël micro yi fii daa jël micro yi. ana micro central. Eh, maa ngi jàkkaarloo ak yéen gars yi. mais kon bombardier tey tey daf ñoo war a fay lu bari bu embouteillage bi ci dëkk bi kenn xamul li la mais na ngeen ma baal nag tey dama tardé. démb ñu ñëpp ñoo nekkandoo woon fële ca Pikine ca stade Alassane Djigo bu Pikine jàkkaarloog ak Eumeu Sène ci bés bi mag bi nga xamante ni ci la war a daje ki nga xamante ni mooy bombardier doomu mbuur bi B52. kan lañ ci àndal Gaston xaali meng la Don King de l'arène nekk bés boo xamante ni amateurs yi dañ koy xaar démb dama jàkkaarloog Eumeu Sène yaakaar naa ni dégg nga ko ma ne ko euh, bombardier nee na li des ci carrière dootul songu mbër ma ne ko ndax pare nga pour dem songu bombardier. mais ma ñu ñaar ñëpp kenn du ci cuune dinañ bëri ndax yaa ngi bàyyi xel loolu. waaw loolu moom maa ngi koy bàyyi xel bu baax parce que euh, Eumeu Sène daanaan la champion bu mag la dama koy jox cër nag dama koy respecté mooy maanaam dinaa ko jox cër bi moom parce que adversaire boo dajeeg moom danga ko jox cër. Euh, li ma war a bëri dimanche incha allah rabbi li mu wax boo ko dëggalee bu dëggalee boppam. combat bi du yàgg lool amaate dañ kontaan. d'accord léegi nag bi ci des bi ci des mooy bi ci des mooy sa diggante euh, Balla Gaye numéro 2 Balla Gaye revanche la doon bëri danga ko ne yaa soxla yow yaa jël si yow nag sa diggante Eumeu Sène revanche ngay bëri Eumeu Sène nee na yaa soxla yow yaa war a jël si est-ce que di nga dem est-ce que Eumeu Sène bu taxawee di nga dem Bombardier. waaw léegi man maa soxla. waaw na ma xam soxla wala ma jël si moom Bombardier ci télé ngay waxee adduna dañ lay seetaan amateur di la seetaan te ñu ci bëri ci amateur yi dañ ne combat boobu bu Eumeu Sène taxawee Bombardier taxaw ci nul lay mujje non combat boobu duñu nul duñu parce que Eumeu seen jaade la xam naa ko da bëgg combat yu tar yu xat te man looloo ma gën lu mën moo tax ma ni la li mu wax bu ko jëfee man ma jëfe li ma wax tama li ma li ma wax naa ko jëfe su ko jëfee nee naa la combat bi dina neex dina métti jël naam incha allah. procès 3 bi. da nga koy indi la ma seen wala. no man daal li may préparé maa ngi koy préparé ak samay mbokk di xaar dimanche lu làmb ji laaj ma def ko lu lu maanaam luñ ma wax ne moom moo lay may ndam dinaa def incha allah. gars yi nee ku ko bëgg a daan ko boo ko jëlee boo ko jëlul doo ko daan. est-ce que gars naan naan nañu système boobu. loolu daal du ma ci wax maa ngi samay staff di di préparé làmb noo daane baax na man daal déggoo li la wax luñ ni lii boo ko defee am ndam loolu laay def incha allah amul lu ma jarul. ana moo daan temps ñëwal Fatma Dia pël acca posé ngeen ba pare ana matu ami Collé gars yi posé ngeen question ba pare Pa Bouba ko bëgg a laaj na na yóbbante question rek waaw waaw waaw moom wor wor mooy lan mu ñëw bañ a wax li mu li mu li mu li mu jëf bañ ko ma def li may indi man non léegi nga xam nga combat bi lan moo la ciy xaar li ma ciy xaar bëri na hmm. mbuur géej dañu soxla victoire moo tax may li ma ciy xaar mooy dóor fayu moo tax ça fait des mois maa ngi liggéey ku ma gis xam ne dama liggéey ba dee bëggal bëgg utuma ci dara lu na amal indi ndam waa Mbour guddi nga dimanche incha allah. dañoo gis ne sa biir face à face yàgg du que da nga koo xeeb mbër du ngeen bëri nga di ko xeeb man bokkuma si kuy xeeb mbër parce que boo ko xeebee soo ko daanee doom benn valeur champion bu mag laay bëreel moo tax dama koy jox cër nee naa la cëru adversaire laa koy jox mais biir géew moom du ma ko jox benn cër. léegi keroog da ngeen ne woon 9-9 la sa diggante ak Eumeu Sène léegi le kan mooy am 12 points. incha allah rabbi moom dafa calculer nu mu ko neexee rek def jox boobu 9 points mais bii nag mooy leeral bii dina xam kan mooy am 12 points incha allah rabbi le 12 le allah 12 points yu wóor allah rabbi dañ koy am. dina la bàyyi ci loolu parce que moom nee na combat bi combat capital la te daf ko jaral. ma ne te yabul waa Pikine ba di ñàkk combat bi. soxlawu ma lu may bàyyeeg ma lu may may ñaanu ko dara. soxlawu ma lu may may soxlawu ma lu may bàyyee soxlawu ma dara dama la ni sarax ndongo njaay wala mu tibb ak dooleem. sarax ndongo wala mu tibb ak dooleem wala mu tibb dooleem ñaanu ma ko dara aw lu may lu may may lu may lu ma koy ñaan lu may ji. wuy pël pël bu rafet. man li liñ ma préparé loolu laay bëree moom na bàyyi di wax waxu Balla Gaye Balla Gaye jàll na Balla Gaye jàmbaar la bëri nañ yàlla may man dam tourné naa paasam li ma bëreeg Balla Gaye ak li may bëreeg moom ci doon benn daf ni Balla Gaye ni Eumeu yaa ngi dégg dani Balla Gaye ne Mamadou Ngom Mamadou Ngom ak Balla Gaye dañu benn mooy Eumeu Sène eh, léegi yow Bombardier Bombardier léegi yan kàddu nga yóbbante Eumeu Sène sa diggante ak moom ngir bu korogee amateurs yi mën a bég ci làmb jooju. li ma koy yóbbante yóbbante naa ko si face à face yëpp. waaw nee naa ko combat bi passé amateurs yi dañu am amuñu leen neex parce que li ñu waaj ak li ma waaj ak li nga waaj ñu ko parce dafa gaaw bii nag dama bëgg ñu jëflante amateurs yi kontaan te yaakaar naa ni. la mu wax moom bu ko jëfee amateur nañ ko tànn incha yaa ne woon jeexaat de ndax Amadou jeexaat. jeexaat maa ko génnee yaa ngi dégg moom moomu ko li ma génnoon mooy Dóor fayu actuellement Dóor fayu moo xew te mooy partenaire incha allah. ah loolu dafa maa rek Dóor fayu. moom su bëggee su bëggee na créé yëfu boppam na créé moom lu muy créé mais ñun ñoo créé jeex jeexaat ñun ñoo créé waat Dóor fayu su bëggee moom na créé beneen bu bees. ah léegi ci mobili ci wàllu mobilisation bi. mobilisation bi damay lancer un appel jamono bi may wax a yéen nii autorité yi si biir Mbour yëpp kenn ku si nekk lancer naa la appel depuis face à face maa ngi koy wax mais tey bi may wax ak yow nii cubb cubb mii moo développé gum ay moyens jënd ay billets pour l'instant cubb kese laa gisagum koo xam ni taxaw na ci combat bi. jënd ay biir defar ay t-shirt ñi nag des na ay fan te yaakaar naa si ñoom bu baax a baax pour déplacement xale yi du dëgg kon nag ñu ngi woo bu baax a baax Fall euh, Cheikh Issa Sall mu ñëw dugal loxoom si combat bi Saliou Samb aussi ñu ngi koy woo ñu ngi woo maître Youm mu dugal loxoom si combat bi Ousmane Gueye maire Saly si combat bi mel ni sooy mu ngi ne la toog suñu ginnaaw di doom day maasu Diop ñu ngi koy wax. Euh, am na sama benn xarit nag boo xam ni mu ngi France ñu koy wax Ismaïla def parce que maa la ko dimbale te mu ngi depuis France Ismaïla kon maa ngi lay sant baax di la gërëm di oo aussi Omar Sy Omar Sy sama carrière yi def si jàpp xam naa ni day xaar mu jege si jàpp ci wàllu violence beeg supporters yi bu ñu ko fàtte. oh ñu ngi aussi Maguette Sène Maguette seen ñu ngi koy xaar bu baax a baax a baax si combat bi suñu président équipe aussi si Silla di gërëm samay staff yëpp nag bu ma leen limee dinaa dinañu bëri macha allah mais su ma limee Moussa Moussa Loos maanaam mu jël nuyoo teg ko si staff bi yëpp ak Doudou mbay jël nuyoo écurie bi yëpp teg ko si loxo suñu entraîneur mbay Boy Boy ñooy nekk guddeeg bëccëg di gërëm bu baax nag euh, sama rakk jële tey muy assurance mu bàyyi teem yëpp maa ngi koy sant bu baax ak ñi ma àndal ñëpp di nuyu ñëpp nag di leen sant leen gërëm di nuyu suma entraîneur euh, Luc Estienne mu ngi jógee France spécial pour combat bi euh, donc Luc euh, ana Luc Estienne maa ngi koy nuyu au passage di wax di kontaan naa trop donc. léegi la nga wax supporters yi. supporters yi li ma wax léegi lay waxaat. ak saisi ñu yàq ak yëpp. waa maanaam ñu jëm ci loolu. violence bi amul njëriñ. Mhm. parce que man du ma yàq làmb Eumeu Sène du yàq làmb kon nañu xool si ñoom ñaar. Eh, ñu bëri nag souvent dañuy ragal a bàyyi seen doom yi pour ñu dem seetaan yi mais maa ngi leen di assurer ni leen làmb ja day am sécurité bu mat sëkk donc nañu bàyyi xale yi ñu dem euh, ñu ngi gërëm aussi police parce que vraiment bi passé dañu encadré ba dugal ñu waaw surtout commandant commandant commandant Ndaw commandant Mané waaw ñu ngi leen di remercier bu baax a baax di leen wax nii vraiment bi passé dañu encadré suñu xol suñu voilà donc dimanche incha allah rabbi départ bi fii la route instant bi fii la kaar yi taxaw donc biir fii lañ koy jotee yi kon dimanche matin ku xëy rek fii route instant incha waaw maa ngi nuyu waa nag jàmm gën yow tënkee waaw waaw maa ngi leen di nuyu